sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin wa ala ahli bayti asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi nuyu jullit muy nuyu bu sell bu kawe di ñaan suñu boroom suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ginnaaw loolu nag mu mel ni sunu jotaay yii weesu jàngale woon nañ ca julli ak la ca aju kon mu mel ni sunu jotaay bii dañ ciy fas yéenee leeral liy tojum njàpp moo di yan kon bokk na ci liy tojum jàpp moo di ngalawal ngelawal nag bu su ko waxee mooy ngelaw liy génn ci buntu suufu doomu aadama ngelaw loola day tëjum jàpp ak xayta xayta buñ ko waxee mooy dem wanag wala tuur ndox tuur ndox buñ ko waxee mooy saw ak li ñuy wax mas yu ak wadd yu yooyu yépp benn bu la ci dal kon sam jàpp yàqu na ba tey boo naan ci sam xel man jàpp naa wala jàppuwuma di sikki sàkka boobaa sam njàpp yàqu walla nga naan sama njàpp toj na wala tojut nga xam ne jàpp nga pare waaye rek yaa ngi sikk sàkk njàpp li toj na wala tojut bu boobaa sam njàpp yàqu wala nga nelaw nelaw yu diis lu mu tuuti tuuti sam njàpp yàqu na wala nga xëm sam njàpp yàqu walla màndi sam njàpp yàqu na wala crise sam njàpp yàqu kon yooyu yëpp benn bu la ci dal sam njàpp day toj donte jàppoon nga kon day yàqam njàpp góor tamit bokk na ci yi yàq am njàppam bu laalee sàkkaraam mooy awraam ci biir loxoom njàppam yàqu na waaye nag bu ko laalee ci fekk ba mu koy laal am na lu dox ci diggante loxoom ak sàkkaraam boobaa njàpp du yàqu jigéen nag bu laalee ab pëyam mooy sàkkaraam bu jigéen bu laalee ak pëyam ci loxoom ci kaw tenxam moom du yàq am njàppam laal yaramu nit baa foon ko boo ci jubloo bànneex njàpp la yàqu na boo ca jubluwut bànneex te bànneex dab la ca it nga xam ne jubluwoo ci bànneex waaye nag gannaaw ba nga ko defee bànneex dab na la ca boobaa it njàpp la toj la liy tojum njàpp bu la dalee ci biir ak julli julli ga day yàqu kon da ngay dem jàppiwaat doo la ñëw julli boo jullee ba noppi nag fàttaliku ne jàppoo ba tey boobaa dangay xam ne sa julli googee baaxut nga dem jàppuwaat te ñëw julliwaat bu doon sobee bu doon sobee nag nga gis mu takk ci ci say yére wala nga fàttaliku ko ci biir julli. dangay bàyyi te dem raxas sobe sa door a ñëw julliwaat boo sëlmalee ba pare door a fàttaliku nag ne man sobe ga takk na ma ci sama ci sama yére wala sobe takk na ma bu boobaa nag julli ga day baax xanaa sopp nañ ne bu fekkee waxtu julli wa jeexagut nga dem jàpp te ñëw nga dem raxas loolu te ñëw bamtuwaat julli ka sopp nañ nga bamtuwaat julli ka waaye nag bu waxtu waa jeexee nag dootu ko jarate kon julli ga baax na mukallaf mu ne war na bu defee luy waral sangu farata balaa julli wala mu def benn xeetu jaam yàlla mu dem sangu ji farata waaye nag bu waree sangu farata ba pare te aw yaramam bañu ko nga xam ne amul benn ngànt bu ko teree sangu farata te sanguwut bu jullee du baax bu jaamu yàlla du baax liy waral sangu farata nag ñeenti yëf la ñeenti yëf yooyu nag la ci njëkk moo di man nii mu génn te ba muy génn bànneex ba ko baaxoo génne génn ko boobaa loolu day war sama faara moo xam ba muy génn mi ngi nelaw wala nelawut moo xam day nelaw moo xam nelawut bu man nii yu génnoo ci moom rek dafa war a dem sama faara kuy nelaw ba yow gis man nii yu ci ay sërëm te yëgul ba muy génn dana sangu te julliwaat bépp julli boo xam te ni julli woon na ko lu njëkk muy gis sobe soose ci moom nga xam ne la la ko dalee ca ba mu gisee sobe sa ba mu fàttali ne sobe sa kat ci jamono jii la ko dal ba ba léegi bu dee ñaari julli la dem julliwaat ñaari julli yooyee bu dee ñetti julli na ko baamtuwaat ak nu mu mën di toll na dem baamtuwaat julli yooyee kuy nelaw ba yow gis ci ay sërëb ay tooy tooy ci yaramam walla ci ay wala ci ay sëram mooy ci ay yéreem te wóoru ko ba xam man nuyu la wala déet naa dem sangu ji rek te door a julli naa dem sangu te door a julli nga xam ne day nelaw gis yeneen tooy xamul man la wala xamul lu mu doon na dem sangu ji rek te ñëw ñaareel ba nag góor ak jigéen bu ñu jaxasoowee bu ñu booloowee donte génne wuñ man niyu sango war na leen donte génnewuñ màndiwu nag kuñ ci nekk ci ñoom ñaar sango war na leen ñetteel ba jigéen ju gis dereeti jigéen mooy jigéen ju gis reegal wala mbaax ba tey dinañ ko wax lu mu tuuti tuuti bu setee war naa sangu ji farata ñeenteel ba ku wasin mooy jigéen ko am doom donte ba muy wasin doom ji andiwut benn tooy tooy andiwut benn direet ba tey sangu farata dina ko war na dem sangu ji kon nag yooyu mooy yi nga xam ne mooy waral sangu faata ak mooy yi nga xam ne it day toj njàpp kon nag incha allahu rabbi sunu jotaay bii di ñëw ñi ngi koy dugal ci nii la ñuy sangoo farata kon kuy sangoo farata ni nga war a def ak ni ngay sangoo farata incha allah rabbi bu ñu toppee suñu jotaay bii di ñëw dinañ ko leeral kon dañuy wàcc kàddu yi fii di wax lépp lu fi jub ci suñu boroom la lu fi dëng suñu jëmm yu xeeb yii la muy melaw doomu aadama kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm in uridu illa al islah ma sataxtu ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa wa barakatu sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene ko fas yéene liggéey liggéeyal